asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel Ali Imran TV di ñu ci internet bi ñoo ngi leen di nuyu seen émission at tadabbur émission bi nga xam ne ci la ñuy waxtaane alquranul karim téereb borom bi subhaanahu wa taala afala yatadabbaruuna alquran seen émission at tadabbur a ngi noonu di tolloog settantal ñu xoolaat téere bi waxtaane ko nuróole yi ci nekk njàngiin yi ci nekk njàngat mi ci nekk topp alquranul i Alifane TV lay amee ay bis gu jot seen mbokk Mbacke Sylla ngeen ciy àndal ànd ak imaam Aboubacar Traoré mu indi ay njàngatam ci téere bi mbokk yi alquranul karim suñu dund la moo ñu netti la xewoon démb nett li ñu lii ñuy dund tey te moo ñuy wax la nar a xew ëllëg والقلم وما يسطرون mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kuréelu yaatal mbindum alxuraan bu C3S biy taxawu jongante bi ñuy amal jëm ci mbindum alxuraan moo yëgal ñépp rawatina ndongo daara yi ne gannaaw diir bu yàgg bi ñu ajandi woon bépp activité jëm ci amal boobule concours di édition 2020 2021 mu ngi xamal candidat yi jotoon na déposé ne dooraat nañu liggéey bi C3S mi ngi xamle ne ngir wéyal liggéey boobule liste candidat yi jotoon a déposé daaw rek la ñuy jël ci loolu danañu njëkk bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2021 ngir jël ci ñoom ñeent fukk yi war a jàll ci xaaj bu njëkk bi ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaai wa imaamil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi seetaan ali imran tv asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginaaw bi ñu santee borom bi subhaanahu wa taala julli ci anabiyil mustapha sallallahu alayhi wa sallam amaan nañ mbégte mu rëy ci dellu siwaat ak yéen ci seen jotaayu alquran bi ñu tuddee atadabbur ñi ci waxtaane téere borom bi subhaanahu wa taala di jéem a waxtaane alquran di ko settantal waaye itam di ko jéem a dund ndax borom bi subhaanahu wa taala noonu la ko bëggee te itam suñu gindeeku àdduna ak alaaxira dafa nekk ci téere bi nga xamante ne mooy alquranul karim jaajëfal leen bu baax a baax nuyu leen siyaare leen yéen ñi nga xam ne ñuy topp yéen ñi xam ne yéenay soppee alquranul karim yi amaan te lool ci feggoowaat ak sama mbokk sama xarit abu Aboubacar Traoré mi nga xamante ne moom lañ baaxoo àndal jotaay bi diirub bañ ko dooree ak léegi yàlla na gën a yàgg mu ñëw di indi contribution yu am solo di indi am njàngatam ci téere borom bi subhaanahu wa taala ku am alxuraan jar ngaa ñee ku am alxuraan jar ngaa bëgg ku am alxuraan jar ngaa defub xarit moom nag borom bi subhaanahu wa taala boole na ko ci ñi am alxuraan ba noppi am jikkoy ñooñ alxuraan yal na ko ci yàlla saxal ñoo ngi koy ndokkeelit ay bis gi ñu génn jotu leen ñu woon a gis ci jotaay bi moom moo ñu ci wuutu woon waaye wutu bu rafet ni nga xamante ne noonu la ko baaxoo defee ndax euh, euh, jotaay bi jotaayam la waxoon naa ko ko di nuyu baax itam soppee alxuraan yi nga xam ne ñoo ñuy topp euh, di nuyu Cheikh Fadel Ka Guet Ardo di nuyu way juram Baye Makhtar di nuyu mboolem ñi nga xamante ne ñoo ñuy topp ci jotaay bi mboolem soppee alxuraan yi rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew sama soppe yi nekk Amérique yëpp tey bëgg ci tadabbur maa ngi leen di nuyu te di leen siyaar Imaam Aboubacar maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoonteeg ñi ñuy seetaan. alhamdulilah alladi anzala alkitaba ala abdihi liyakuna lilalamina nadira ndeysaan walsalaatu walsalaamu ala almabuuthi rahmatan lilaalamin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh masha allah ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di mm-hmm. nuyu mbokk yi ñuy topp yépp ci jotaay ak tadabbur mm-hmm. di am mbégte encore ci wax dëgg yàlla feggoo ak yow jotaay bi alhamdulilah nekk loo xam ne saa yu ma ko amee la damay bég dëgg la ndax toog ak yow di waxtaanee alxuraan rek. Mm-hmm. loolu beneen dimension la may yóbbu. dëgg la te bëgg naa loolu ñu am ko ak jullit yëpp. ñi ñuy topp fii eh, ci jotaayu at tadabbur ak mboolem équipe u Ali Imran TV. Mm-hmm. ñu toog ëllëg ak yeneen bi sallallahu alayhi ñuy waxtaanee lii yeneen bi diñu diñu diñu diñuy teraat amiin yaa rabbal aalamiin yomb na suñu borom dëgg la ndax alquran yàlla moom la ko jox dëgg la ne ko jottalil ma ko gaañi dëgg la donc képp ku si ngoy rek moom daanaka bokk nga ko ak la kon nag yàlla nañ ko bokk ak moom ëllëg ci aljanna alquran day continuer ba aljanna dëgg la kon loolu laa la lay nuyoo dëgg la di ko nuyoo mbokk yi dëgg la tamit euh, vraiment di la ñaanalaat bu baax jërëjëf yàlla yokk la taxawaay amiin amiin ci ci zaahir ak ci baatin amiin yaa sa taxawaay rafet na ràññeeku na jërëjëf te lépp ci téere borom subhaanahu wa taala jërëjëf jërëjëf dafa mel ne alquran moom duñ duñ mas a jóg ci jamonoom ah, waaye jamono ji nekk daa gën a nekkaat jamonoy mm-hmm. alquranul mm-hmm. karim nit ñi nit ñi daal wax macha allah sa day sedd ñi ngi bëgg alquran ñi ngi bëgg jàngkati alquran yi mm-hmm. njàngeen yi gën naa tasaaroo euh, jàngkati alquran yi wax dëgg yàlla reer bi may am ci ñoom mooy ñoom ñu doon ay star ñi nga xamante ne ñooy ñi ñi di teg ci kaw ndax loolu da yóbbu ndaw ñi ci ñu gën a bëgg téere borom bi subhaanahu wa taala imaam Abubakar tolluwaay yooyu am na solo tolluwaay yu am solo la xam mm-hmm. nga war nañoo defaat te taxaw seetlu. Mm-hmm. mooy lan mooy yàlla lim bind bari na. dëgg la wala asamaan ak espace bi ak suuf. Mm-hmm. ak planète yi bés bu ne rek nga gis ne boroom xam-xam yi scientifique yi ak astronomie ñi ngi gën a yéemu ci li nga xam ne moom mooy univers bi dëgg la ba yàlla bu muy wax ni wassamaa banaynaaha bi aydin wa inna la muusiun allahu akbar loolu muy théorie big bang bi nga xam ne bokk na ci ijaazu alquran quran mooy kéemtaan alquran mu ne kon wassamaa banaynaaha bi aydin bi aydin bi aydin bi ay bi bi quwwa waaw bi ko dëgërale mu dëgër waaw ci force ci sama loxo waaw waaw waaw moom ngoog léegi nag wa inna la muusi woon mooy jamono bu ne dama koy yokk mm-hmm. day am expansion bu mm-hmm. yéeme mm-hmm. te li ci doy waar xam nga lu yaatu moom ki yaatu ki xam ni mu toll moo ko mën a wax moom moo ko mën a ab liir moom bu duggoon ci <laughs> suñu euh, bu duggoon ci appartement day jàpp ne àdduna la ndax ci biiru yaay la génne mu yaatu woon ci moom waaye nit itam day mel ne planète bi muy dund dafa yaatu ci moom mu naan dëkk bi dafa rëy kër gi dafa yaatu <laughs> fee am naa fa nangami hectare waaye borom bi nga xam ne moo yéem lépp nag kii ko hmm. day mel fi nit ki taxaw moo gën a tuuti ci moom fi sànqaleen yu taxaw moo tax moom li mu yaatal moo gën a yaatu lépp moo gën a yaatu allahu akbar te am na ay ay ay ay kii euh, planète yoo xam ne seeni lumière mm-hmm. ba mu départ rek léegi mat na milliard d'années mm-hmm. ak seegul ci ñun mm-hmm. xam nga loolu yéeme na te lumière mi ngi daw daanaka trois cent mille kilomètres par seconde allahu léegi nag asamaan soosu espace soosu yëpp ak mbindeef yi ñu xam ak yu ñu xamul bés bu ne ñu découvrir ay mbindeef yoo xam ne yu yéeme bés bu ne sax nga gis scientifique yoo xam ne nañ planètes yi nga xam ne ñoo nekk à côté am na yeneen mbindeef fee dund waaye dañ koo xamagul. dëgg la parce que dem nañ bay enregistrer ay son yoo xam ne. xam nañ ne am na fu muy jógee. dëgg la mais xamuñu lan la. dëgg la loolu yëpp yàlla bàyyi ko fi. yow doomu aadama ñit mm-hmm. mm-hmm. yàlla ne yow laay waxal mm-hmm. jël alxuraan kalaamullah waxu yàlla mu ne sëñ Mbàkke laay waxal macha allah Aboubacar laay waxal. wallaay Samb laay waxal. wallaay Demb laay waxal. wallaay Ismaïla laay waxal. wallaay donc jël at parole am bu toll ni. Mhm. alquran karim jox la ko. Mhm. loolu ban teraanga. Mhm. moo ko mën a mën a mën a. wallaay wallaay loolu loolu loolu yëg-yëg boobu. dëgg la ak teraanga boobu. ak vraiment jagleel boobu. yéeme na lool alxuraan teraanga teraanga yi kese la. dafa bari dafa bari dimension yooyu lañ war a dem dëgg la dafa bari dafa bari ay teraanga bari ay yokkute. bi nga ciy wax nii maa ngi xalaat. yonent bi ak alxuraan. sallallahu alayhi wa sallam yàlla defal na ma xéewalu ma dem barki démb rek fa alxuraan ji ko wàccee di jabalu nuur mm-hmm. di xaaru iraax eh, foofee ca màkka mm-hmm. nga xam ne imaam boo demee sa yaram day daw ngay xalaat yonent bi alayhi salaatu wasalaam di xool mm-hmm. jeexital yi léeg-léeg sax ma toll ci benn barab di tàddabur sama xel nekk ci yow moo tax eh, nekk ci li nga war a nekk lu am solo la waaye eh, maanaam yéeme gi mu yéeme ëpp na nga xool tey fi àdduna toll mhm. ci wàllu développement ci mhm. wàllu doxalin ci wàllu yu baree bari mhm. waaye nga xool yonent bi alayhi salaatu wasalaam yenn yu baree bari bi mu koy joxoñ ak bi alxuraan di wàcc ci moom waaye ñi doon dund alxuraan tey te meloon na ñu tumuranke tey ñooñu mooy ñi nga xamante ne ñoo am teraangay àdduna ñoo am teraangay alaxira wallaahi te loolu mooy dëgg Euh, ñi ngi lay ndokkeel bu baax ci. Mhm. Euh, umra boobu nga xam ne def nga ko. alhamdulilah euh, yàlla na ko yàlla nangu. amiin yaa rabbal aalamiin ay umra yu bare yàlla yombalal la ko. ba saa yoo bëggee dem rek nga dem. amiin amiin imaam loolu loolu ci ci sedd xol la bokk. waaw ah, moom ngoog macha allah am na am na yëg-yëg yoo <laughs> xamante ne. yàlla xam na ne des ko fay yëgee. wallaay waaw am na yëg-yëg yoo xam ne. des koy yëgee ci. <laughs> Mhm. Euh, barabu yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo tax yal na yàlla may jullit yépp ñu dem fa amiin amiin ndax dem ba mu yàgg nga yëg ne fii ngay dox fi la yonent bi doon dox waaw yéeg-yéeg mënatu koo weesu <laughs> mënatu koo weesu euh, dem ba mu yàgg nga ñëw nga xam ne sa digganteeg fi mu tëdd ay mètre la léegi ak fi nga ba tiim ko hmm. imaam léeg-léeg sax nit toll ci tiim googu tiim gu njëkk gi hmm. du mën a ñaan du mën a ñaan du mën a du du du du mën a wax hmm. du mën a tudd yonent bi alayhi salaatu wa salaam aw làmmiñam day damm <laughs> waa ji day jaxasoo foofu foofu noonu mu toll ci ci période boobu léegi rawatina nag bu ci boolee yàlla dimbali ko mu amu xam tuuti mhm. nga xamante ne xam ne mhm. eh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam fii la dëkkoon mhm. fii la doon jullee di fàttaliku taarixu ba mu ñëwee Madina maa ngi koy wax sama xarit bu baax bu ma àndaloon bi ñu demee Xubaa euh, ci ci masjid boobu nga xamante ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam condition yam fa wàccee di julli mhm. condition yi doy waar la mhm. bu doon ñun la nga ne damaa bàyyi ba damay sonn ba àgg wala nguur ngànt ndax ngànt mën naa taxaw <laughs> waaye taxawaay yooyu mu am nekk taxawaay yu yéeme yoo xamante ne mhm. euh, rëyaay ga ëpp na bala maa laa jox sax ñu ñëw ci li ñu tax a ñëw man euh, dafa am loo xam ne léegi dama koy bëgg a partagé ak ñu baree bari rawatina ci ndaw ñi nga dem fekk ña fa tëdd tey juróom-ñaar fukki saxaaba yoo xamante ni ñi nga tëdd te la leen tëral mooy taxawal diine lislaam la leen tëral mooy woote bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam lañ lañ bëgg woote woote mhm. boobu woote boobu jëm ca kaw nga ñëw fekk leen ñu tëdd tey eh, ñaare bu ma ñëwee damay rus oxoot moom damay mhm, rus mhm, damay rus ndax dama da da ngay poser question yow est-ce que est-ce que defalagun nga dara diine ji maanaam ñàkku ñii ngay dunde tey ñàkku ñii ngay dunde tey seen deret lañu <laughs> suuxate keppaaru lislaam ji yow teraanga ju rëy rëy ju ne nit ñaa ngi la koy defal ci turu lislaam ñi la koy defal ci turu diine ñi ngi la koy defal ci turu alxuraan ñi ngi la koy defal ci turu nàngam mm-hmm. asahabatul kiram yi nga xam ne ñoom dañoo jaayante Musab mhm. ibnu Xumayr mi nga xamante ne sama mhm. idole la eh, ndax ndaweem ak taxawaayam ci mhm. diine keroog bi mu faatoo nee nañ buñ sàngee bopp bi tànk yi day feeñ buñ tànkee buñ buñ bu ñu sàngee tànk yi bopp bi day feeñ mm, mm, ñun ci kàttanu yàlla ak xéewalam ak barkeb alxuraan may laa man laa may nga yaakaar ne am nga lu man ñetti mbubb yoo xamante ne nii eh, benn bu nekk jot na la te mën nga koo waaje génn dem ci mbooloo ci maam yëg-yëg yooyu ak cant lay jural jullit bi mm-hmm. goo xamante ne cant gu réy la waaye dem ba foofu jàngi ko mm-hmm. dafa lay yokk jomboo dellu si waat wallaay eh, pour yokk ci li nga doon mm-hmm. wax léegi te mu am solo lool nit ko am xel al al al yàlla di afala taaqilun noonu lay raisonné dëgg la waaye ki nga xam ne xelam nag jëfandikoo ko. Mhm. nga xam ne moom bopp bi da koy yenu rek. te mhm. bopp du pour yenu. déedéet bopp du pour du du du dem foofu. dafa mhm. am benn jotaay bu ñu mosoon a def ak ay boroomi xam-xam yu bari kenn ki ñuy wax euh, Rifa. Arafa noonu la tudd. égyptien la borom xam-xam bu mag xaw ma na mi ngi dund. ba léegi waaw mu ne mu ne euh, bi mu waxtaanee ba pare benn sénégalais. moo def benn xaatira. joxe benn contribution boo xam ne paa bi dafa daanu boroom xam-xam bi dafa daanu allahu akbar mu ne moom bi bi bi euh, euh, cheikh bi di waxtaanee jaar-jaar yeneen bi saxaaba yi mu ne moom dafa ruus kon ni nga ko waxee léegi waaw mu ne ko lu tax mu ne parce que dafay xalaat al keroog ci aljana maanaam bu ñu duggee aljana ba toog mu ne Umar abnul Xattaab toog Ousmane abnu Affan toog saxaabatul kiraam yi toog waa Uhud toog ak effort yi ñu def si diine yëpp mu ne bu jékki-jékki rek Umar nul Xataab jàkkaarloo mu ne ko ni waaye yow yow diw mu ne ko waaw mu ne ko yow lan nga def si diine lislaam ba bokk ak man toog fii boobaa lan laa koy wax. est-ce que mu ne boobaa moom lan lay tontu Umar abnul Xataab. Mhm. Umar mën na présenter ay jëfam ñeneen ñeneen ñeneen mais moom lan lay tonti. Mhm. mooy wax bi nga wax léegi. Mhm. kon mu ne kon war nañoo amaat beneen yëg-yëg bu bees si diine lislaam bi ñu góorgóorlu ci. ñu bañ ko def diine dundukaay waaye ñu def ko mm-hmm. diine boo xam dañuy dundal diine ji mm-hmm. waaye ñuy dundee diine dëgg la dëgg la te ku dundal diine ji mm-hmm. diine ji teral la wallaay ndeysaan waaye boo ko defee beneen sens contraire dëgg la mu toroxal na dañ ci am li nga bëgg ci àddina ni mais euh, intérieurement da lay toroxal te ëllëg tamit moo jar a sóor lu am am solo la lu am am solo nekk ubbi ko am solo yàlla nañ fa ànd wallaay waaye nag bëgg naa la poser benn question foofu waaw euh, ak surtout jotaay alxuraan dañ waaw naka nga dundee alxuraan maanaam ban nag ban yëg-yëg nga am ci alxuraan bi nga demee ci bërëb yooyu yu mel ni madinatul <laughs> a yu mel ni màkkatal karam nga xam ne ngay am beneen yëg-yëg boo xam ne mooy alquran fii la wàcc mm-hmm. fee la wàcc diggante ñaari dëkk yooyu nga xam ne mm-hmm. booy liir alquran 114 surat yooyu yaa ngi li liir madaniya makkiya waaw loolu <laughs> xam nga xam nga <laughs> xam loolu sax am na ci yëg-yëg yu baree bari yoo xam ne xaw tuuti kon nga ne kenn kenn mënu koo misaal am na ci yëg-yëg yoo xam ne mm-hmm. kenn mënu koo misaal si misaal tey boo ñëwee di jàng surtout xujuraat Mhm. yàlla dogal nga nekk ci biir jumaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne yàlla di wax mhm. yëpp dafa mhm. dafa concerné foofu dafa concerné fi nga doon wax ki nga ki yàlla di waxal mi ngi ni tëdd mi ngi ni tëdd euh, loolu dafa dafa dafa am ay yëg-yëg yu rëy yu am alxuraan moom doy na fa wéttal euh, te itam da ngay mujj yàgg dootoo mën a dem. Mhm. dootoo mën a dem ndax man bu fekkente ne du du jamono yi ma tukki foofu. ma wax ko mhm. rek ngir cadre njàngamee mhm. yooyu. yàlla ñu yàlla musal ci lépp ngir. amiin amiin mooy bis bu set danaa góorgóorlu ba jàng ñaar fukki isi bi alxuraan. nga xam ne ñetti fan yu ne da nga da nga jàng kaamilu alxuraan. defe naa loolu 96 ba ma mokkalee alxuraan. ak léegi bis bu set ma def ko. waaye boo demee ba ci barab yooyu. day mujj yàgg benn isib doo ko a <laughs> <laughs> jeexital yi nga xamante ne alxuraan ji mhm. euh, seetan voilà seetantal bi voilà da ngay da ngay taxaw taxawaayu ñu <laughs> jëf léeg-léeg nga taxaw di tiim jenn aaya mhm. yàlla xam na ko am na ci yoo xam ne mënaguma koo wax mais léeg-léeg nga agsi foo xam ne da ngay day day mel ne lii tey nga ko door a mhm. jàng ndax yëg-yëg yi nga ci am euh, léeg nga euh, am naa fa benn souvenir damaa ñëw julli si julli si julli si suba di jàng alxuraanul karim di jàng surtout xaaf ma nekk di ko setantal eh, ñu kàbbaral eh, imaam Xusayfi yal na ko yàlla yokk wér yal na ko yàlla yokk sàmm ndax ma ngay magal mu daal di jàng alfaatixa rek song sóoratu xaaf nga xam ne fi ma ci yemoon naan su ma noppee moom dama koy àggale mm-hmm. maa moom ñoo ko àggaleendoo ci suñu ñaareelu rakk julli suba nga xamante ne moom ma ko moo ma moo ma moo ma ko àggaleel allahu akbar allahu akbar donc euh, ay mbir lay yéeme mbir la yéeme ay dimension yéeme la nga xaaf boobu <laughs> allahu akbar allahu akbar bokk na saar yi nga xam yeneen sa sallam da ka daan def xutba juma xutba juma nga xam ne xutba bi yëpp suratu xaaf la si jàng di ko firi di ko fàttali saxaaba yi mm-hmm. tax saar bu yéeme moo tax moo tax mm-hmm. loolu kon da ngay mm-hmm. da nga fay amee ay yëg-yëg maanaam maanaam ci téere bi ak ak ak ak it noonu nga xam ne euh, noonu nga àndeek moom di doon doon doon dunde ak moom ci barab bi ci barab bi loolu maa ngi maa ngi jégg lu baax nag <laughs> waaw maa ngi ciy jégg lu baax masha ah, Allah lii la lii la maa ngi ciy jégg lu baax alquran waaw eh, wajilat qulubuhum la alquran wax dëgg la dëgg la ah, maanaam eh, ñi nga xam ne bu ñuy waxtaanee sama téere bi mm-hmm. sama aaya yi wala ñu mm-hmm. dégg ko mm-hmm. wala ñu koy jàng seen seen seen seen xol yi daal di yëngu seen yaram bi yëg ko cër yi yëg ko waaw mhm. juluuduhum mhm. ila dikrillah dëgg la la donc loolu teewlu nañ ko ci yow en tout cas euh, mi ngoog yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal luñ mhm. julli ci moom doyut yàlla nañu ko yàlla fayal amin amin yàlla nañu ko yàlla fayal amin yàlla nañu ko yàlla fayal amin waaw wax dëgg yàlla loolu ñu naan dogoon ko nag nangam mu ñaaw waaye dogoon ko nag moom ñëwam gi mu ñaaw oh. waaw bu fi jaarul woon jaaram gi mu jaar xawma ñun fu ñu jëm. fu ñu jëm ak nu ñuy mel waaw parce que itam. waaw tubaarkàlla <laughs> waaw la après da ngay da ngay da ngay da nga ciy amee ay kii daal. Mhm. da nga ciy mhm. amee ay yëg-yëg. yu yaatoo yaatu. Mhm. moo tax xam naa danañ ci ñëwaat. incha allah dañ ci ñëwaat dañ ci ñëwaat def ci eh, def ci jotaay. Eh, bu soobee yàlla ñaan borom bi ci barke alquran. mu tàggatal ñu ak jàppandal. ba ñu dem ba foofee ca Medina. toog defe fa atadabbur. incha allah ndax boobaa yaakaar naa am na yu baree bari yuñ bëgg a wone yoo xamante ne eh, yooyu sax ci mébéti Ali Imran TV la bokk Mm-hmm. maanaam mm-hmm. yi nga xamante ne mm-hmm. taamu wuñ koo gisoon ci suñuy télé dañu koy tëwëril waaye ñu won ñu ko ñu won ñu ko defal la spécial Uhud nga xamante dañ montagne mi ñu la doon expliqué dañ la ko won won la mbir yi ni mu tëddee um, incha allah nga xam ne benn benn benn benn kii lay doon voilà voilà nga xam ne benn benn benn wasaa kii lay doon boo xamante ne nii bu ama am donc njariñ lay doon incha allah ah, yàlla nañ ko yàlla defal amiin amiin imaam fa isa euh, faraxta fansab wa ila rabbika far xam. macha allah eh, alxuraan lu yéeme la. Mhm. ndax daa mel ne sax fi muy dugal aaya ji li ñu doon waxtaanee ñun booba léegi. waaw jékki-jékki ma jékki-jékki ne la waaye léegi nag fa isaa faraxta fansab. waaw wa ilaa rabbika farxab léegi loolu noo ñu koy jàngatee. <laughs> macha allah suñu borom subhaanahu wa taala muy wax ci suratu charx. ne fa ida faraxta fansab. seetal wa ilaa rabbika farxab. nit quand tu te libères boo demee ba libre hmm. li nga doon def hmm. yaa ngi woon ci liggéey yaa ngi hmm. woon ci dara yaa ngi woon ci benn projet yaa ngi woon ci benn activité benn occupation mooy nag jógal nag il temps nag ilaa rabbika farxab waaw jublu sa boroom nag bul fàtte sa borom maanaam passion bi nga am wala divertissement bi nga xam ne moom moo lay yëngal temps mort bi nga am Euh, récréation bi nga am. Mhm. pause bi nga am. Mhm. jox ko sa borom. est-ce maanaam dafa mel ne yàlla moom. waaw sañoon ñëpp ñibbisi. ñëpp ñibbisi. mu ne la foo man di dem. foo mën dem rek waaye lu mu guddi guddi fanaan si ci man. maa ngi lay xaar. waaw maa ngi lay xaar maa lay dalal. waaw fa isaa farta fansab waaye nag wa ilaa rabbika farxab waaw parce que moom xemmeem ma xemmeem ma xemmeem gaa yi bëree bëri bëri jaam yi bëree bëri am na leneen lu ñu xemme dëgg la am na koo xam ne baar ba lay dem toog dëgg la xemmem dëgg la xel li kaasam di naan loolu moo koy moo lay dundal xolam loolu lay dundal am na koo xam ne foo mu xëcc juin wallaay ndeysaan am na koo xam foo na koo xam ne moom si carte ji lay dem am na koo xam ne ci match bi lay dem dëgg la am na koo xam ne ci leneen leneen lay dem mais yàlla ne na wa ila rabbika farxab dañoo am ñu yaay dañoo am suñu jenn ñu yaay maak professeur Lamine Dramé <laughs> euh, al oustaz muy professeur Lamine Sarr macha allah ñu ngi koy nuyu xam naa ko ndeysaan <laughs> dañuy jàngal <laughs> Euh, waaye léeg-léeg mu wax ñu lu ñu jege loo xam ne duñ ko fàtte mm-hmm. fu ñu toll ci njàngale mi suñu xel da ciy nekk mm-hmm. nee nañu dafa am ñoo xam ne dañoo yeex a jof si mm-hmm. xam nga jof <laughs> euh, bu dee ci àll ba euh, wala ci ta wala ci kaw gi ko waxee noonu bañ a wax àll ba ci kaw gi maanaam sàmm bi ñu koy wax ab sardi day xëy taxaw ci pénc mi daal di ëf ak mbibam wala mu fëgg lam yor kenn ku ne yeewi sam xar mu dajale xar yëpp dem sàmmi bu ngoonee nag li muy def di ñibbisi ci dëkk bi loolu mooy jof mooy ñu ne kon dafa mm. jofal si ñëw na ñëw na ak jur gi mm-hmm. bu ñëwee ci penc mi mm-hmm. xar mu ne day daw dugg seen kër ndax xar mu ne xam na fa mu dëkk léeg-léeg mu ñëw leewwaale ay mbote parce que am na xar yu na mm-hmm. xar yu jur ci àll ba mm, xar yi ëmboon jur léegi mu ne nag dafa am ñoo xam dañoo yeex a jof si ma ne ko ma ne ko mooy lan mu ne xam nga ñun ñëpp dañoo mel ne dañoo xëy dem

jox si ah. waxtu jox si macha allah. macha allah kon moo tax suñu borom. Mhm. moom dafa war a jël lañ ko war a jox yépp ci mhm. suñuy waxtu suñuy dund. Mhm. bu desee nag la ñuy jox leneen ñu jox. mais ci philosophie bi gën a yaatu te alquran wax ko ci suratul an'am suñu borom subhanahu wa taala wax ni qul na salati wa nusuki wa mahyaaya wa maati lillahi rabbil alamin allahu la sharika lah Oh. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين macha allah kon kul waxal inna salaati sama julli samay jaamu yàlla wanu sukki mm-hmm. ak lépp lu may def rek pour taqarrub mu nekk lu may jegal borom muy sacrifice rek wallaay ndeysaan wa mahyaay ak sama dund yëpp mm-hmm. wa sama dee yëpp waaw lillaahi lillaahi rabbil jox naa ko borom loolu mooy def te yàlla def te yàlla tax maanaam da nga ciy dégg ne kii lekk yàlla tax mu am tiyaaba mu am tiyaaba mu liggéey te yàlla tax am tiyaaba lépp lu muy def na ko def te yàlla tax mooy na sóoraale ne am na beneen force bu mu gisut beneen boo xam ne mi ngi ànd ak moom boobaa nag loolu yëpp jaamu yàlla lay doon. Mhm. lépp jaamu yàlla lay doon ki génn ba muy génn dafa génn. ngir dem uti ji am. la muy dundee ngir mën a dund mhm. jaamu borom subhaanahu mhm. la muy jox njabootam ngir tàggat njaboot yooyu ci jaamu yàlla kooku lépp lu mu def ci coono lu mu daj ci coono fa mu mën a jaar ak la mu mën a def yëpp ak lépp lu mu am ci ay difficulté lépp tiyaabal yiw lay doon. dëgg la mel ni rek ki taxaw di julli. wallaay kon fa isaa faraxta fansab wa ilaa rabbika farxab wa ilaa rabbika farxab da daf man daal sama borom léeg-léeg xam nga boo jëlee <laughs> aaya jooju nga demaat ci téere bi jël wa'bud rabbaka xataa yatiyakal yaqiin jël euh, fële euh, euh, ca suratu an-nasr mhm. isaa jaa nasrullahi wal fathu wa ra'ayta an-naasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja mhm. foofaat lam ko tegal mooy fa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfirhu daa mel ne yàlla saa yu nit ki demee ba am résultat mhm. ba noppi ci lim doon def mu taxaw ne la maa ngi nii. maa ngi nii waaw delloo ma ko. <laughs> delloo ma ko lu mel ne mel ne danaan la nag bàyyi ma xel mi ngi war a jot. <laughs> xam nga tey yonent bi alayhi salaatu wa salaam lim lim daj ci woote bi. Mhm. nit ñi di tuub ay benn par benn. Mhm. léeg-léeg mu toog ñetti fan kenn dugg ci diine ji. waaw léeg <laughs> mu toog lu yàgg kenn du ci dugg ku ci dugg sax mu nekk événement. mu dem ba mujj yàgg. Mhm. liy dugg ci diine ji mënatu leen a e, e, e, maanaam recevoir. kenn nit mooy ñëw ne ko man ak sama famille. man ak waa dëkk ba ñëpp. waaw seen jaayante nañ ci ci sama tur muy yadxuluuna fi diinillaahi afwaajan affaire bi tàmbulee neex. Mm-hmm. nga xam ne bu dee ñun daajug njoowaan a ci def léegi. <laughs> wala boo ko. Euh, <laughs> euh, euh, maanaam a commencé noof. yàlla ne ko fasabbih bi hamdi rabbika dellu sil dellu sil dellu sil waaw <laughs> dellu sil ndeysaan. <laughs> daf mën a jàngale yàlla na ko yàlla yokku. nee na kii mm-hmm. yéeg ba ca kaw daa mel ne yonent bi da doon yéeg ci ron wala mm-hmm. koko. Mm-hmm. ki Fatima tëjal buntu bi. da doon yéeg ci ron wala koko. yéeg a yéeg a yéeg a yéeg ba ca kaw. ba ca njobbaxtalu garab ga. mu mel ne fasabbih bi hamdi rabbika wastaghfirhu mooy jàppandul. jàppandul jàppandul waaw na nga na nga ngoy bu baax ci garab gi mhm. lu ko mooy da ngay daanu mhm. mel ne lu lu lu ab yéegam gën a kawe mhm. ñu gën a bëgg mu jàppandu hakada masha Allah loolu mooy yoon donc moo tax euh, suñu borom subhaanahu wa taala muy wax ni wala tuti man agfalna qalbahu an dikrina wattabaa hawa wa kaana amruhu furuta allahu akbar allahu akbar donc wa ila sa borom jaamul sa borom fexeel ba delluwaat ci sa borom. Mhm. te nag bàyyi maa ngi lay bàyyi loo xel ne wala tuuti bul topp. mukk mukk mukk mukk. voilà ah, dëkkuwaay bul topp. mukk mukk bul topp mukk. waaw abadan man aghfalna qalbahu an dhikrina mhm. ki nga xam ne xolam dafa sàggane ci tudd yàlla. Mhm. maanaam ki nga xam ne xol ma du mus a yëg borom subhanahu wala faalewul borom bi leneen lay yëg beneen yëg la am. soo toogee ak moom si jotaay wala boo demee fréquenté ko wala boo nekkee ak moom du la fàttaliku. yàlla du la wax lu lay jëriñ du la wax lu lay yóbbu ci wàllu lu lay jëriñ sax ci àddina waxuma nag asama ak allah moo tax ibnu mas'ud mu ne moom dafay yéemu ci waajoo xam ne dafay nekk loo xam ci loo xam ne du ko jural njëriñu àddina du ko jure jëral jural njëriñu àllaaxira ibnu mas'ud moo doon wallaay kooku jar naa yërëm kooku jar naa yërëm macha allah imaam sóoratu <coughs> sóoratu shar'i bi ñu doon waxtaan nii boo ñu ko doon tënkal <coughs> boo ñu ko doon tënkal dañu ko mm-hmm. résumé lañ ci mën a jàngee mooy li ma waxoon euh, émission bi wees mm-hmm. mooy boo xoolee alfatiha suratul fatiha daf ñëw jox caabi ñu ubbi bunt ba dëgg la ba ñu ubbee bunt ba nag moom surtout charx nag moo ñuy yaatalal lépp lu ne ci biir kër gi wala ci bërëb bi nga xam ne moom la ñu ubbi mm-hmm. donc suratu charx lool la mm-hmm. suñu borom subhaanahu wa taala muy wax yeneen saa salaam ne xanaa yaatalul ma la sa dënn dëgg la bu yaatu rek lépp yaatu dëgg la yaatu ay dënn moom mooy yaataayu xel mm-hmm. moo tax ki la gën a yaatu xel yaat gën laa yaatu gëstu gën laa yaatu la mu tukki gën laa yaatu la mu gis gën laa yaatu ab njàngat rek moo lay gën a yaatu le xol moo lay gën a mën a dékku moo lay ëpp tolérance yàlla ngi jàngal sa saa sallam loo xam ne luy jëriñ jamono yëpp la génération yëpp la mooy ouverture d'esprit dëgg la am tolérance mën a dékku mën a wax ak ñëpp mën a ñëpp mën a ñëpp mën a dem ak ñëpp waaye lépp ci yoon deg ko ci dëgg du ci na nañu faaq bokkut ak nag ñoo koo xam ne day camoufler ànd ak ñëpp ngir ay intérêt la non non waaye demeewul noonu masha Allah kon beneen bi moom mooy ah. alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak donc fii loolu yaa ngi ciy yëngu yaa ngi ciy nekk am na poids yoo xam ne mi ngi tegu sa kaw poids yooyu man maa la koy teggi man maa la koy teggi donc kiy yëngu ci maanaa ki nga xam dafay tolérer ñëpp di nangul ñëpp di baal ñëpp di jéggal ñëpp di suturaal ñëpp moom itam loolu la ko yàlla di delloo mm-hmm. wat what's going around comes around. comme ni ko anglophone bi waxee. est-ce que li dem rek. li nga li nga joxe. mooy delluwaat waaw <laughs> mooy ñëwaat rek. <laughs> mooy ñëwaat rek li kon woo daaraan kabis rek. ki ko bëgg a am noonu ngay mel. Mm-hmm. loolu yàlla yeneen ti bi la ko doon wax. mais ñëpp lay waxal dëgg la su ma bëggee yàlla jéggal ma. yàlla teggil ma samay baakaar suñu borom du ma toppee dara duma ma toppee nit ñi dara. du ma leen ku ma tooñ ma jéggal mhm. damay yërëm nit ñi di leen dimbali ba pare nangul leen accepter leen mhm. moom nga kon woo dama na antawi si la donc saar bi ci gàttal yooyu mooy point yi nga xam ne gën a am solo yu ci war a jàng ñu jaajëfal la ci bu baax a baax macha allah ab soññee la ngir ñu gën a bëgg téere bi soññee la ngir ñu gën a bàyyi xel ci alquranul karim afala yatadabbaruuna alquran moo ñu ca yóbbu mhm. waaye itam ki gën ci yéen mooy ki ko jàng te di ko jàngale waaye innamaa yaxsha allah min ibadihi al ulama al ulama bunt bu yaatu la mhm. waaye nag mën nañ cee dugal it kii jàng alxuraan te di mhm. ko settantal mhm. ndax Sëriñ Tuubaa daa waxoon ne alxuraan maddatu kulli ilmin mooy cosaanul bépp xam-xam mm, boo demee ci alxuraan mën nga caa génnee lu nekk loolu la ñuy jéem a nal ngir di ci génnee liñ ciy génnee buñ ci génneewu dara lu cofeeluk alxuraan mu doy ñu sëkk imaam yan kàddu ngay jeexale li may eh, jeexale rek mooy jamono ji bu ñu waxee miracle dëgg-dëgg miracle dëgg dëgg kéemtaan ci doomu aadama dëgg la mooy mu topp alquran allahu akbar loolu mooy miracle loolu mooy miracle waaw mooy challenge bi actuellement dëgg la dëgg la waaw euh, actuellement looloo xew waaw looloo xew mokkal alquran topp alquran topp alquran loolooy miracle waaw jeex na waaw euh, benn mag gune yi dañ ko doon tooñ ñu ne ko mais yéen maam noo leen doon dundee si jamono joo xam ne amu leen internet amu leen facebook amu leen euh, maanaam moyen de communication mënu leen dem fenn ay gëléem ak ay far fas ak tànk nga ni utiliser pour mën a déplacer wu. mu ne ñi ngi doon dundee comme ni ngeen ni dundee yéen tey te amu leen jikko dëgguwu leen mën a nar mën a wor. mu ne noonu lañ doon dundee. allahu akbar macha allah allahu akbar macha ko yàlla de yal nañu leen yàlla fayal. ñoom ñuy suuxatal alxuraan ba ñu fekk ko fi. jamono ji moom miracle bi. jërëjëf bi mooy jàng alxuraan mooy ci. waaw alxuraan loolu mooy miracle ku ko am rek defal na la. kéemaan jàmbaar nga jàmbaar nga dinaa la wutal dinaa la wutal ñetteel. <laughs> <laughs> ah loolu dina am solo de. ah yaa kon ñeme nga. waaw wuu pare naa <laughs> sax waaw ah. su sëy na bu waxul dara dinaa am nu ma def waaw parce que gën damaa toog ñemewul wax comme comme gën damaa toog toog danaa am lu ma def ah <laughs> allah jërëjëf jërëjëf imaam Aboubacar Traoré jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéenay topp mm. Atadabour mbokk yi nga xam ne yéenay topp Ali Imran TV seen jotaayu Atadabour a ngi noonu cant ngërëm ñeel na leen bàyyi bis gii di ñëw incha allah bokk mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kuréelu yaatal mbindum alxuraan bu C3S biy taxawu jongante bi ñuy amal jëm ci mbindum alxuraan moo yëgal ñépp rawatina ndongo dara yi ne gannaaw diir bu yàgg bi ñu ajandi woon bépp activité jëm ci amal boobule concours di édition 2020 2021 mu ngi xamal candidat yi jotoon a déposé ne dooraat nañu liggéey bi C3S mi ngi xamle ne ngir wéyal liggéey boobule liste candidat yi wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel Ali Imran TV di topp ci internet bi ñoo ngi leen di nuyu seen émission at tadabbur émission bi nga xam ne ci la ñuy waxtaanee alquranul karim téereb borom bi subhaanahu wa taala afala yatadabbaruuna alquran seen émission at tadabbur a ngi noonu di tolloog settantal ñu xoolaat téere bi waxtaane ko nuróole yi ci nekk njàngiin yi ci nekk njàngat mi ci nekk topp alquranul karim Ali Imran TV lay amee ay bis gu jot seen mbokk Mbacke Sylla ngeen ci àndal ànd ak imaam Aboubacar Traoré mu indi ay njàngatam ci téere bi mbokk yi alquranul karim suñu dund la moo ñu netti la xewoon démb nett li ñu lii ñuy dund tey te moo ñuy wax la nar a xew ëllëg